oui je pense que Mahmoud Sy Albert est un excellent politologue li mu wax ni dafa am solo dama ànd ak moom ci loolu xam nga Karim chance bi mu am tey mooy mën naa wax ni sax en partie Macky Sall moo ko ko may parce que il a cherché à faire mal il a cherché mal au président Wade au PDS et particulièrement à Karim bien yooyu nag ñooy retourné wu tey contre moom mu am avantage yu Karim am ci avantage c'est comme il l'a dit xëy na aura bi mu am léegi bu soon fii sax xëy na du ko am alors c'est quelqu'un qui est très macha allah am na réseau te itam fii au Sénégal gis nañ ko mu liggéey c'est quelqu'un qui connaît l'État c'est ça son avantage c'est quelqu'un qui connaît l'État il y a beaucoup tu as parlé de génération de concret mais le candidat actuel de benn Bokk Yaakaar pour nous bâtir de Macky Sall mais c'est quelqu'un qui était à, à, à la génération du contraire déedéet maa wax nii Amadou Ba je le confirme ici sur votre plateau. Amadou Ba ngay wax de. Amadou Ba il était à la génération je le confirme ici devant ton micro. maanaam Poulain Karim la woon. bu wér également je le confirme ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc c'est pour dire que c'est eux qui devons avoir du complexe par rapport a nous mais pas nous c'est important loolu psychologiquement parlant. ces gens ne pourront pas nous faire face parce que loolu dafa loo xamante ni da dul dañ te c'est connu de tous les Sénégalais pratiquement alors donc chance boobu dafay germer yeneen i yeneen i sympathies yeneen yenn sympathie l'ex génération du concret mooy ñëw faire face. non pas non à son ci bokkoon bokkatu ci. waaw waaw d'accord mooy faire bi yoon son mentor. non parce que parce que parce que simplement encore une fois c'est l'histoire c'est dans notre régime que Amadou Ba a été nommé général des impôts et domaines. il faut il faut le savoir voilà il faut le savoir bi nga xamante ni en 2012 on a perdu le pouvoir pour mu des foofu wala pour mu am avantage il fallait mu ranger wu c'est simple que ça lii rek la woon comme comme plusieurs directeurs d'ailleurs loolu tax ñu bëri dem ah. il faut comprendre cela. comme waa PS. il faut il faut comprendre cela noonu la affaire bi demee mais en vérité en vérité. Euh, wala dafa wax ni bëgg du bañ alors les les les cœurs sont toujours penchants mais li am solo mooy ñun xalaat nañ ni avec la stratégie bi nga xamante ni Albert wax na ko léegi chaque formation politique à sa propre stratégie chaque candidat à sa propre stratégie notre stratégie présentement wax dëgg yàlla nous naa pas la décliner autour d'un plateau de télévision ou d'une euh, simple euh, ou d'un simple passage quelque part dañ koy téye ba nga xam ne ñoon na xamuñu koy génne